démb nag déglu nañu le président de la république Macky Sall mu wax ni du def troisième mandat mu indi émotion bu bare ci biir Sénégal mais loolu ñuy wax rek au niveau de Yewwi Askan Wi que mënul renoncer li nga xam ni amoo ci droit ñun lu ñu yàgg wax mooy amul droit ci troisième mandat donc jóg ni damay respecter li constitution bi wax respecter li nga xam ni yaa ko bind ni lii maa ko dugal pour constitution bi mën a appliquer wu ci man donc loolu boo ko defee acte bu ñuy constater la ensuite di xaar yeneen acte yi nga xam ni yu am solo la pour sénégalais yi am solo ci jàmmu réew mi nga xam ni ñoo ko bokk yeneen acte yooyu mooy une participation inclusive de tous les leaders qui le souhaitent ci élection présidentielle yi nga xam ni moom la du jëm beneen acte bi mooy la libération de tous les détenus politiques parce qu'il ne faudrait pas que acte boobu mu def doon une ruse pour gën a mën attaquer yenn leader opposition yi gën a mën attaquer le président Ousmane Sonko donc di wax ni renoncer wul à troisième mandat dafa def lu dul respecter li nga xam ni moom la constitution bi wax et jël nañ ci acte di xaar yeneen pas yu important yu mu war a tey jii nii def mu jëm ci képp ku bëgg bokk bokk képp ki nga xam ni mi ngi ci prison yi ñu mën leen libérer parce que amul droit wu teg foofu kenn di wax nag ni Yewwi Askan Wi. jàmm la bëgg ci jàmm la mos mais jàmm ñaar ñoo koy séq muy pouvoir ak opposition et que à chaque fois c'est le président Macky Sall qui accule l'opposition donc dire très rapidement que nous avons entendu hier le président de la République Macky Sall qu'il renonce à un troisième mandat auquel en réalité il n'a pas droit parce qu'il faudrait renoncer à quelque chose dont on a droit. Mais il nous a toujours dit que c'est lui-même qui a introduit ces dispositions de la Constitution pour se l'appliquer. Donc si aujourd'hui il se conforme à ce que la Constitution lui impose, on ne peut que prendre acte et attendre de lui d'autres pas allant dans le sens de la pacification de l'espace public, de la pacification de l'espace politique. Et ces pas, nous les connaissons tous. D'abord, l'organisation d'élections libres et transparentes, mais également d'élections inclusives qui permettra à chaque citoyen qui le souhaite et à chaque citoyenne qui le souhaite de pouvoir briguer le suffrage des Sénégalais. Mais également libérer tous les détenus politiques. Ils sont nombreux dans les prisons. Et leur seul tort, c'est de se mobiliser, de s'être mobilisés contre ces forfaitures contre ces violences qui ne proviennent de nulle part, qui ne proviennent nulle part que au niveau du régime actuel, au niveau du président de la République, Macky Sall. Donc il ne faudrait pas que l'acte qu'il a posé hier soit une ruse pour davantage s'attaquer à l'opposition, pour davantage isoler les leaders de l'opposition, pour davantage isoler Ousmane Sonko. C'est pour cette raison que nous demandons à tout un chacun de rester vigilant et mobilisés et nous avons pris acte de cette décision qui n'est rien d'autre qu'une réponse qui était attendue de lui en tant que chef de l'État, à savoir respecter les dispositions de la Constitution, cette Constitution qui a clairement dit que nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs et par conséquent, ce qui est attendu de lui, c'est l'organisation d'élections libres et transparentes, mais également d'élections inclusives. Je vous remercie.